mani cas tegal la ci sa loxo Seex Moodu Mustafa mani cas tegal la ci sa loxo Seex Moodu Mustafa mani cas tegal la ci sa loxo Seex Moodu Mustafa mani cas tegal la ci sa loxo Seex Moodu Mustafa. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi nii seetaan fu ñu mën a ne ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu. te di leen siyaare ñu ngi leen di nuyoo nag fii nga xam ne moo di Touba Rimini ci bis bu màgg bi nga xam ne moo di màggalu Daaru Xuddoos màggalu Daaru Xuddoos nag ku ko wax sa xel dem ci jàmbaaje sëñ Mourou Moustapha Karim mi nga xam ne moo liggéey liggéey bu réy bi ginnaaw Seexul Xadim bi mu fi bàyyi ko da ci gën a réy nga xam ne moo doon sas wi nga xam ne moom la ko sëriñ bi sasoon ni ko ngeen fexe ba yóbbu sama jëmm ji Touba te kenn bañ ci amul yoon maanaam nasaraan bañ ci amul na lu jafe la ndax booba ku ne xam ne moomagul suñu bopp ndax sëriñ bi nga xam ne moom sax moom lañ doon yóbbu Touba ci résidence surveillée la nekkoon ba bi ñu koy yóbbu Touba te boobu Touba bi ñoo ko doon surveillé kon mel na ni loolu sax la woon wu diis sax mu di a mu nekk mu ñu tax ñuy màggal tey jàmbaar la defe naa du ma sori ci saa yu ubbi la rek waaye ñu ngi leen di bàyyi xel ni xam ngeen ne yéen a ngi seen en direct ci daara Touba Simone ci mi nga xam ne mooy suñu bi ngeen mën ñu sant ci Facebook ak YouTube fu ngeen ci mën a dem dañoo ànd nag ak suñu mbokk moo xam ne mu lu mu seqal jotaay bi di sëñ Mbacke Sarr tey ji moo ñu fas yéene joxal jotaay bi incha allah di ngeen xam ne ci plateau bi nga xam ne dina diire incha allah diira nga xam ne bis baa ngi dem ci guddi gi ci ay gan yu wuute yoo xam ne leen fi dalal kon nag eh, ne ko jëriñ waxe sëñ rek day ñu am fi gan goo xamante ni sëñ Moustapha Mbaye mi nga xam ni bokk na ci ñi nga xam ne ñoo seq commission culturelle bi la ñuy seq ak moom benn jataay ngir seq moom laaj ak i tontu kon ñu jox sunu gan mu daal di nuyoo ko defee ñaari seq ak moom jataay bi bisimilah sëñ Moustapha. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. waaleykum salaam mbokk yi ñu ngi leen di ziare di leen nuyu. ñoo ngi nuyu sëñ ak sëñ Mbàkke ñoo koy ziare bu baax a baax di leen dawal jàmm di kontaan ci eh, jataay bi nga xam ne ci ngeen ñu woo muy jataay boo xam ne jataayu islam la jataayu diine la jataayu fàttali jaar-jaar yi Seexul Xadiim ak euh, liggéey bu mag bi nga xam ne moom la Cheikh Moustapha sumb ba tey jii lii ñu mën koo taxawee. jërëjëf ci nuyoo bu am solo bi amin itam ci ñaan yi euh, sëñ Mbacke Sarr kon mel na ni toog nañoo gan goo xam ne yaakaar naa ko ko laaj ci liggéey bi dina ko xam ñu fàttali dafa bokk ci commission culturelle bu liggéey bi euh, liggéey bu toll nii nag ku ko wax di nga tudd commission culturelle ndax ku ne xam ne ne ñooy saytu diine ji ñoo koy taxaw ñooy saytu itam li nga xam ne moom la war a liggéey bis bi loolu nag bu ñu ko tuddee bokk na ci alxuraan yi nga xam sax da cay ñu koy saytu kon mel na ni bànqaas bu am la jiite ci liggéey bi kon dañ lay bàyyi nga tab moom ci laaj bi nga xam ne fi nga ko war a dugg ak moom bisam maam góor comme nañu ko ko waxee rek xam naa ni eh, li ñu njëkk laaj mooy nan ngeen waajale bés bi muy laaj boo xam ni mooy cëslaayul màggal gi muy màggal gi ku ne xam na ni li ko woote mooy jàng alquran jàng xasiida mhm. fàttaliku dellug sëriñ bi ca këram gu jigéen nga xam ni moo waxan ni bis yi ko gënal ci bis yi addunaam ak bis yi àllaaxiram mooy bis bi nga xam ne ci lay dellu ci sunu borom tabaraka wa taala mm-hmm. loolu nag euh, jaa waajalewuñ ko ci ndaje fi rek waaye dañ ko waajal ci jiital ko ci njàngum alquran ca euh, ni daayira bi sosoo nga xam ni ci ay banqaas yu bari la tënku ci ay section yu bari loolu ñu dugg ci euh, wax section bu nekk mm-hmm. na ngay jàng alquran yebalewuñ ko ci bis bi waaye ci at mi yëpp Euh, semaine bu nekk ab section dina wàcc ak kaamil alxuraan hmm. noonu lañ koy waajale ba bis bi bu bis bi di ñëw ko ni bis bi itale lu yaatu la mu ñu ñu bàyyi ko ci gox yi fasantikoo ñu wax kaar boo xam mi ngi départ fa mu fa mu jóge ba ba muy ëgsi na ko commencé ci njàngum alxuraan ba ba muy ci bi ci suba ba ñoo ngi commencé di ak ci bu takk boo xam ni xam naa bu ci ci fandaw la dina ma solo la incha xam nga dafa mel ni dañuy baax ñuy fàttali ni bisu Sëriñ Tuubaa bu ñu ko wootee day baax ci ñëpp ñuy ñëw ñu xam ne kon bis bi day bisub sant yàlla di bis boo xam dañ ca war a ñaanal sëriñ bi kon dafa mel ni ku ci ñëw war añ laa soññ ci ni soo ñëwee doo nekk rek ci mbedd yi di wax wala nga denc sa ci biir jataay bi di wax waaye da ngaa war a ñëw toog njàng ci ñaamar xoraan bi dafa naa loolu tam lu ñu ci war a yokk la sëñ Mbàkke Sarr waaw kon xam ko sëñ Maam Gor waxee rek bis bi nga xam ne mën nañu waral Seexul Xadiim day baax kenn ku nekk xam ne bis bi euh, nekkul daara Daaru Xuddoos kese la lépp koo xam ne aju nga ci Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yaakaar naa ne bis bi sa bisa waaw mu mel ne euh, euh, ci tam waxtaan yi kon nañu jàpp ni dañu waxtaanee jëmm ji di Seex Muhammadu Mustafaa dama jàpp ni loolu war nañ ci gën a soññaat baax di ñu mel noonu sëriñ njàmbaar des cee war di ñëw saa su nekk damay institut ci njàmbaar Seex Muhammadu Mustafaa nga xam ne tey bu doon moom tey lii lépp dara du am parce que mession boobu rek kon dara du sotti wala dañuy jéggaani sëriñ bi ndax sëriñ bi suñu sàggan ba sëriñ bi indi ko Touba na naalam yi nga xam ne bàyyi na mu def ko kon dañuy jéggaani sëriñ bi kon kon fu mu ne fa la koy fekk kon baax na ñi xam le njàmbaar googu ak posture boobu ak dogu googu noonu surtout ñi nga xam ne ñu ci réewu Touba bi yaakaar naa objectif bi nga xam ne bépp daayira bu nekk fii ci Italie moom nga war a am mooy nooy mën a fexee ba téye sa say ndaw nooy mën a fexee ba yow li nga xam ni yow mi nga xam ne xis nga rëcc ngir namp nga diine islam namp nga yoonu murit naka a soxalee saxe soxale sa njaboot ndax ku ne xam ne ni fii euh, njaboot gi li ciy waajur yi am lu ndaw la ci temps bi nga xam ne moom lañ ci am ndax lu ci gën a bari ñoo ngi koy nekk ci nasaraan bi hmm. léegi nag bu ñu jógee ci nasaraan bi hmm. naka nga leen di accueillir ci lan nga leen di nàmmal ba nga xam ne yow la nga jële woon Sénégal doo ko perte ci ñoom hmm. moo waral kër Serigne Touba yi taxaw moo waral daa daayira yi taxaw ku ne xam ne ni kër Serigne Touba yi taxaw na bari na lool waaye am na yoo xam ne tam daayira yi tamit ba dañ ciy daje weer wu nekk mhm. di daje am na ñoo xam ne par semaine la di daje di def ay kuréel di jàng jàng jàngom jàngom xasida waaye loola léeg-léeg dinaa leen ci sànni xel ni bu leen topp xasida yi nga xam ne sëñ bi daf ko daf ko def maqu mhm. wala mu koy def salaatu ala nabi mhm. waaye da ngay war di delluwaat di def marjeex ci xasida yi nga xam ne sëriñ bi daf ko bind mu jëm ci wàllu xam-xam mu jëm ci wàllu yar lu ci mel ni na jox daay la xaaj nga xam ne day yar doomu aadama bi rafetalal jikkoom ba mu nekk al insaanul kaamil muy nit ku mat sëkk koo xam ne foo ko gisee ku ne doo am leneen looy xebit ci moom loolu mooy li nga xam ne moom la sëriñ Mouhamadul Moustapha gànnaayoo woon ba tax mu mën a not ba tax ma mën a ñi nga xam ne ñoom la jamonante woon ñuy ay sëriñ wala ñuy ay buur wala ñuy boromi kàttan yoo xam ne nota nan àdduna waa Cheikh Moustapha daf leen a not ci jikko ju rafet ba tax na sëñ Bay Jaxate naa wax naa Cheikh mu Moustapha pinti panta na ma lan la mooy pinti panta mooy fekki mooy ji ci jikko ji rafet la ko wan ci jikko ji euh, euh, xuluxul xuluxul xasan muy xol bu set xol bu sell moom la moom la moom la fexe ba ñi nga xam ni wan jiite euh, nekkal na ci kanamam ñii di ay baayam ñii di ay magam ñii di ñoo xam ni si nii ay kilifa la woon waaye fexe na ba ni wax ni ñoom ñëpp sàmm naa leen waaye ci yatu yatu njub laa leen laa leen sàmme woon muy lu am solo loo xam ni képp koo xam ne yaa ngi ci fii ci biir réew bëgg a doxal sa mission bëgg fexe li ngay li ngay lancé li ngay njàngalem Xaadim Rasul mi ngay jàllale mu àgg fa jëm loola nga ko war a mën a gànnaa yore moom nga war a mën a fexe ba àggalee ko ci noonu muy jikko ji rafet ak njub bu tege ci dëgg ak siraatul mustaqim